Eh, sëñ bi yaa ngi nekk en direct euh, Sénégo TV ak Kawtef yaa ngi nekk actuellement Tunisie est-ce que mun nga ñëw waxal exactement sénégal yi nekk foofu euh, nan la seen dëkkuwaay mel ak li fa jot a xew ak vidéo yi ñuy gis ci internet bi. waaw ñu ngi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ñu ngi delloo ziar. waaw ñun ñun ñun man benn étudiant laa benn ndaw Sénégal laa bu nekk bitim réew nekk Tunisie di jàng. Mhm. waaw mais ins bi. dëkk bi dafa yëngu trop. Mhm. parce que gis nañ ne depuis un certain temps depuis six semaines bi. Mhm. président Tunisie bi. Mhm. dafa def benn discours. ñëpp jàpp ne discours bu bu bu racisme bu bu bu raciste la quoi. léegi nag ñun ins ñun instant yi ñun étudiants yi Sénégalais yëpp on vit on vit la peur dans le ventre. instant yi ñëpp a tiit. instant yi ñëpp a tiit. parce que on on que depuis si biir semaine bi. ñu ngi gis que les les Tunisiens ils sont devenus haineux. si mm-hmm. seen si seen réseaux sociaux yeex yëpp ils sont mm-hmm. en train de dire que restez chez vous euh, de notre pays mm-hmm. la Tunisie c'est pour les Tunisiens et autres gis nañ ne instant yi kenn nekkatul si sécurité te boobu ba léegi dégguñu suñu benn autorité wax instant yi ñi ñu ngi nii on actuellement on vit dans le déni mooy loolu bu yi instant kenn nekkul si sécurité te bëggoon nañ nag autorité yi yëg si yëg ko jàppale ñu même su fekkee dañuy envoyé ay avion. Mhm. ñun ñu ñibbi. Mhm. waaw ñu mën a ñibbi ñibbi. Mhm. parce que gis nañ ne démb démb am démb am benn kii benn kër étudiant bu ñu commencé attaqué ba taal fa taal fa taal bund bi ak yooyu policiers yi ñëw ñu dem ñu ñëwaat. kooku sénégalais la étudiant bi ñu bi ñu attaqué këram. non du Sénégal du Sénégal benn si. non su ma juumul Camerounais la. si ak ah, yooyu. Mhm. même tey ñu ngi wàcc pour pour dem jënd euh, suñuy condiments ak yooyu pour pour pour en cas si biir semaine bi. Mhm. mais ñu ngi rom benn panaar mu ñuy wax mu mu ngi wax beneen naar bi ils sont toujours encore là. ba mhm. pare dañu hypocrite. donc moo moo tax ainsi ndimbal lañ bëgg daal autorités yi jàppale ñu. loolu lañ bëgg. d'accord euh, message bi incha allah autorité yi dinañ ko dégg parce que Sénégal ñëpp ñoo koy suivre oui ñu ngi lay déglu. oui allô oui allô. je suis je suis un, autre étudiant. Mm -hmm. aussi. de mhm. moi en actuellement. Mm -hmm. de suivre samay études. Mhm. man aussi j'aimerais bëgg naa am lu ma ci yokk. waaw parce que parce que man moom je les faits au euh, mhm. mhm. euh, a été agressé genre il y a de cela un mhm. euh, dafa génnoon moom aussi di dem jënd lu mu lekk huit huit tunisiens. ils de huit. ñoo ko ko dóor nangu lu mu yor yëpp dóor ko dóor yu metti ba mm-hmm. gaañ ko mm-hmm. après biñ demee biñ demee porter plainte aussi mm-hmm. genre mujjul fenn ah, et on on on connaissait on connaissait ce qui genre les les personnes qui avaient fait cela vous voyez maintenant mujjul fenn genre pour dire que actuellement euh, ak président bi lu mu euh, discours am bi aussi genre bon man je me dis que genre euh, au fait tunisiens yi ñoom dañu profité wu ci occasion pour mhm. euh, pour génn pour voilà pour extérioriser genre li nekk ci ñoom. parce que pour qu'on le dise pas la vérité en est que ils sont racistes au fait. Mhm. c'est juste que le racisme était déguisé. Mhm. Mais maintenant que le, président lui-même, genre, a fait un discours haineux et raciste envers euh, les, les, personnes de la, de la, la couleur noire, mhm. comme, comme ils, le disent, tu vois. Ils, ils nous appellent les Africains, mm -hmm. genre, pour dire qu'ils ne se considèrent pas comme des Africains. Mm -hmm. Le président, l'Oumoir, c'est dit, si discours bi genre ci luñ ci retenir nee na les euh, les subsahariens veulent faire de la Tunisie un pays africain mhm. alors que la Tunisie est un pays arabo musulman parce ce qu'il ce qu'il a dit. Mm Vous voyez. Mm-hmm. Maintenant, pour dire que ñoom ils ne se considèrent même pas comme des Africains. Mais mm-hmm. maintenant nag genre il est temps que nos dirigeants. nos autorités. Euh, def seen def li leen war def seen liggéey. parce que c'est pas la première fois genre problème yi di am. il faut qu'on qu'on le dise aussi. fan yii la passé. yi c'était pendant l'été euh, suñu suñu ay morom yu bëri ay sénégalais ñu bëri dañoo dañoo doon dem à aéroport dañoo mhm. amoon foofu ay problème mhm. ba ñu arrêté leen mhm. y avait y avait un sénégalais je sais pas car euh, loolu noonu comme doon nañ ko wax sax si si si si information boobu doon nañ ko jàllee si si jàllale si télé euh, à la à la fin parce que genre euh, je pense qu'il répondait au nom au nom de mort euh, dañ ko arrêté woon. Euh, mhm. genre pour pour rien euh, à l'aéroport ñu tey il avait tous ses papiers avec lui ñu arrêté ko police tëj ko personne n'était au courant genre il a fallu que sa famille di laajte di laajte di laajte ba ñu ba ñu ba ba ñu xam ni genre le gars n'était pas rentré parce que il était censé rentrer. Mhm. vol bi mujj ko jël police ñoo ko arrêté. Mhm. et beaucoup d'autres cas yoo xamante ne nii mën nañ ko mën nañ ko souligner beaucoup il y a beaucoup d'autres tu vois te man lu ma gën a métti personnellement en tant qu'étudiant mooy tey jii. Mhm. Euh, suñu ay professeur man je euh, parce que actuellement man je suis en train de faire euh, mon stage. Mhm. tu vois mhm. def actuellement je pars même plus faire stage j'ai dit ça à notre une de notre professeur. lu ma wax mooy que moom elle n'est pas au courant. Maintenant, il a parlé au directeur. Le directeur est venu me voir aussi. Euh, il, a, parlé avec moi. Il m'a, je lui ai expliqué le cas. Il a dit aussi qu'il n'est pas au courant. Pour dire que, euh, non, mhm. mais il y a le hypocrite. Mhm, mhm, voilà. parce que information bu toll nii ba France 24 même di di di di diffuser information bi kon pourquoi ñoom bu ñu nee yëguñu ko dañ ma baal mais du dëgg. parce que tout le monde est au courant actuellement. côté Sénégal seen ambassade bi lan lañ def ban jéego jéem nañ leen a jege jéem nañ wax yeen jéem nañ xool nañ leen leen di protéger gis ngeen ay actes yu ñu posé côté ambassade. Euh, suñu suñu suñu ambassadeur. Euh, mhm. gis naa mu jàllale benn message message euh, message bi ñun si suñu groupe euh, groupe WhatsApp étudiants yi la lañ jàllale message bi et on nous a dit que c'est c'est l'ambassadeur qui a envoyé le message de fait disant mhm. que voilà qu'on reste chez nous qu'on sort pas mhm. qu'on soit sur nos gardes en plus genre que bépp Tunisien ñëw genre ñu jéem a agressé wala mu ñuy wax euh, des injures ou bien quelque chose comme ça mm-hmm. ñu ñu bañ leen a tontu bañ leen a faale te ni tamit qu'on est dans leur pays mm-hmm. voilà euh, c'est c'est c'est ce qu'elle a dit la dame mais mer na trop aussi franchement mm-hmm. man donc je la connais pas personnellement mais gis gis naa message am bi au fait actuellement daal lool lañu amagum mais ñun moom actuellement génn ñu defuñu dara parce que dañoo tiit loolu mooy dëgg bi mhm. genre euh, parce que euh, man man personnellement lu tax lu tax euh, man may gën mooy tey jii sama yaay sa yaay da woo xam nga yaay mhm. seen xel du dal actuellement fu ñu mhm. toog ñoo ngi xalaat yooyu xalaat parce que tamit sa doom dem dëkku jàmbur di fa jàngee nekk fa ak famille am nekk fa ak kenn genre il est seul là-bas tamit euh, genre problème yi am sa xel mënul dal. Mhm. moo tax loolu rek boo koy xalaat après yow aussi da ngay tiit c'est ça. Mhm. c'est ça ba ba pare tey comme euh, sama xarit bi nu mu la ko waxee dañoo génn di dem di lu luñ lekk. Mhm. je vous assure benn benn benn ñu dajeeg benn tunisien qu'est-ce qu'il a dit ils sont toujours là après tontu wuñ ko lan lañ ci mën. ci tontu wuñ ko. et dire que on, on est juste venu ici pour continuer nos études et tout genre après j'ai problème yi di mujjee am ah, franchement là personnellement man moom bon là là je je veux plus rester dans ce pays c'est c'est ça c'est ça la vérité au fait personnellement je plus rester dans ce pays actuellement bu bu mag bu ñu suñu autorité yi bu ñu xëyoon euh, def comme waa Côte d'Ivoire lu ñu leen defal envoyé leen vol ne ku bëgg a ñibbi da ngay ñibbi personnellement man je vais personnellement je vais parce que là ñoo ngi ñoo ngi si njàkkaare daal vraiment. yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar. Ah, incha allah ah, yi buñ jotee ci vidéo bi on les espère bien que dinañ réagir nu mu gën a gaawee. Ah, ndaxte jàng moo leen fa yóbbu uuti xam-xam ñëw pour taxal njaboot ak aussi taxal seeni i waajur yal na leen yàlla sàmm.